ngir bëgg a way ñaar ja saamu sa koor fukk ak juróom ñaar laa ko fas ci weeru koor ndax te naam saare tar daaray ni te bu naam aaray ni mbaa naaray ni mbooleem fu Seex Bamba woon ci mi ci jéeri ji laa bëgg a wax waa mi gannaaw bu ñu bisaak ba jaar Daaru Salaam foofu dem ba Gànnaar dem Jolof njaareem ni daam mu daal di ñëw Jurbel mu ñibbi Tuuba danaa ci xam le luy njëriñ su booba ndax Bamba noon na sama mbir ci duniyaa lu mujj a ñëw ëpp la wey ca boot yaa gaaw ba Bamba xee Mbàkke baari tabi ci géej li xidmatil muxtaari la mbir ya rey rey saay ran wa baatina gaaw ba Bamba gonte daaru màgg na day saaw nee na keroog rëcc na mbooti daara yaa def ko ca daaram nga fandaam ak sero ya danaa la wax fu mu sa jaar ba gannaar caamu ak sasin fatil muxtaar am fa yentaat mbërë ci boor ya yaram ya sar xoleek sa gani toor ya danaa la wax lu ma sa xew caat yi nga xam ni bamba du mu romam naar yi caamu ak sasin la dem jolof njaay am fa juróomi abdu sambalaw be njaay daarul xuddoos la sañ seeg sa si fa daaru rahmaan la dëkkoon seeg sa ci weeru tam xarit caama la sa si bamba wax la bamba ñëw jurbel tubaab yooyu la sa si siiri la waxoon ta way wax si bamba la wax foofa day na xaar wax fukki at ak juróom lam fa njaareem ak nit fan man bamba doy na maa danaa la wax danaa la wax danaa danaa la wax xar baax yam ci dox bi ci nit saat yeeg nga fonk bis bi danaa la wax bu musa jaar ci ak sesi di wër ci jéeri ji baa ma wam sesi bi la soxna muslim ba kay màggal moo jara màggal ku ca dem fa àggal ngir gaaw bam xëyoon jolof la màggal moo tax ku màggal màggal akam lay sargal xarat teew ma sabti rabia safar la bamba wax màggali dal ne xasar yow soxna muslimatu nang ma ñaanal ma weer baagale ko réew mi saabal yow soxna muslimato yow mi waada dugul ma weer ceng bam muraada dinaa fi way lu su josaamu sakoor cay xibaar insha arabi kay buur xibaar yi yu teg juróom yaar ci jéeri ji man la yam juróom yaar dégul ma wax la la waral mbaaxaan ja gannaaw dogal ba ca xadim ngir waaja gannaaw dagal ba ca xadim ngir waaja auzu oh, billaahi mina seytaan yal na nu yàlla feewaleeg mbaaxaan auzu oh, billaahi mina seytaan yal na nu yàlla feewaleeg mbaaxaan ma wax la bis sey xu bamba ñu bisee ba bokk naa kiri jaama kese si bisub dibeer di ñetti fan te kori wax la gonte kër numbe ànd ak ferayak war ngela mbol ma gam jamba ke maane te digg guddi la ni fanaani daaru salaam daaru salaam daaru salaam gaawaani réew mi fu dugg mu rina ku tijaani am faayak bis ngan nga raw tabaski ngan nga wayor naa ko ca siidi mbakke yol ma marse borom gaawaani loola ko fàttali ma lay fukki nag ak juróom bu nekk ànd gileem ak fukki bay lay ba muy ayak bis ceex ni tay ma rendi nit koy taxaw jox tani neex ñu mandi dam ni ko jaaraama mu jàppab jaab jëbal magam sëriñ ma mor borom saam ñu teg juróom ñett ca weeru kori wa keroog dal tine laand ak fere ya ñu teg juróom ñett ay mu roobi tuuba da jeg wal tine woor na booba la siyo ba wàcc daarul ma naan ba wa keroog daaru salaam ndaa naan keroog la daa keroog la daam keroog la daam keroog la daam ma naan mam ceer na faati mboole ñam ya aki naan ngan nga mu ne su koo xibaar ci dunyaa lu nekk am na fa bi xayri sun yaa moo tax trawa baa nga dar ma naan kenn dootu mar kenn dootu xiif ñëpp a ngi naan tabax yeex ak baraag yeex dar ma naan dana gëdd ak tuuba neex waay ma fanaan gile guddee jar di ko magal abadan ngir darajay Cheikh Bamba ak Muhammada salaam salaam alayhi bil aali mu Cheikh bi ba man wallaahu fekk na maam Cerno tabaxlu ay taax yu mel ne jannatu naimi ngir baax Tiwaawan ak Kees ak Luga ak Ndakaaru ak Luga ak Ndakaaru landaayo noo yere jam si daaru Cheikh moo dund Mbàkke Cheikh moo dund Mbàkke def na fay kër ci ndigalal Cheikh Bamba gaayam yaay sikar Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal moo Cheikh Ibrahima Sarr dem nañ fay taax yu rafet ñëpp ni xaar lal yëpp ne su ko xibaar baa doola lal yaa waral mbaaxaan da déggal loolu lal yaa waral mbaaxaan da déggal loolu lal yaa waral mbaaxaan nga déggal loolu kirey lam pamba toyaya fan la ñonni siidi ngaay ndar njindaay laal yegganoon fardaami ndar fukki lal ak ñaar fukki lal ak ñaar la ku nekk jënd ci ndigalal Seex Bamba lal yand lal bu ci nekk mel ni weer mbaa fooru ni froosin mar footin muy fiiru Seex Ibra Faal Seex Faal Seex Ibra Faal Seex Ibra Faal Seex Ibra Faal moom laa leen def gileem ngir suturaal xam naa ko ba ñu baba tamaaka jëm si daaro borom mu ngooka mu lee jóg dewaaro ñu si pisam yóbbu ndi ko ngeri adala juy waayi mbaaxaan di sori mu nuy leen ndekete yoo awrij lak di lamb saako yak di lamb lal yak mu lamb tànk lal ya ney fetal la Seex Bamba day bëgg a jaar ngir yàlla bisub keroog la daal di xëy dem njaareem xibaar ko mbaaxaan dag yëpp di dag yëpp di ko yem xibaar ko mbaaxaan dag yëpp di ko yem keroog la mbaaxaan dal diis ko ko mbir yam mbar ma dal di telefon borom darak borom Dakar yu dégg laar da wax mbaaxaan mu mel ne dëgg laar da wax mbaaxaan mu mel ne dëgg te waaye fañ lan daal di wax carte yàq yëgal ko buur yëpp ñu waajal garde yàgg seex yëpp ñëw ci ligalal maam Cerno di teeru Seex Bambay tabax di barna Seex Bambay ñëw daaru ba weeru gamu gaaw ga gaaw la mu xëy di ramu ca maamaat la noon ba tudd mbaaxaan dikk fa Mbàkke bàpp daal fay jaaxaan sant fa waa Mbàkke lu mel ne campement ndekete Bamba lay fexeel mag naa ko mag ña tekkul ko fa lu mat juróom mu nekk wala juróom benn mu del gën a foog te suba si mbàkke bab ànd ak njaamur birahim kepp keroog la mbaaxaan walu seex bamba fa mbàkke bab mbàkke géppi bamb seex bamba bañ yebal ca seex anta seex moodu gay jëmo daal di gont ba ñu mu mer naa mer dëkk doo wax ak yéen abadan maay gar dëkk maa di borom réew mi te moom laa soxla ne ko borom ndar mooma yor mi soxla te réew mi maa ko te dara naa ko ni yaar yu mat am naa ko ba ñu ñëwee xibaar ko Bamba mu ne ko ndaw du sooru maa sum baay baax keroog la Bamba gonte daal ma naam war ca karaar ga togg si di gaawaan ba ñu ñëwee bay jublu Mbàkke bab gaa yi nuyoo ñu ne waa mu naarab sëriñ Tuuba ne ko mokkal xasida ak sindeede sëriñ Tuuba ne ko mokkal xasida ak sindeede na ma ko jàngal ba ca Mbàkke daari sëriñ ma xujja mbay ma xujja ma dëkk la ngoor ne maa ko mokkal Bamba ne ko waaw góor mu wax ba jot ba dem ñu ren ca way waam na ku lax daayin mu naa ko doy na xabdal bu soori mat laa gaam na not naa samay noon dëkk tey lii wer na ab soxna tàkkati ci mbàkkeeg daaru dëkk fa ñëw sa xol su waaru ab soxna tàkkati ci mbàkkeeg daaru dëkk fa ñëw sa xol su delloo waaru daal di ni cëpp wàcc jaar ca jàkka ja fa ñaar rakam fa maxraja saam ak borom gaawaani maam ceer na ci afiya ñëppay waane ñu ñëw mu wax leen loolu ko wax ngi ko ko di nga daal nga torox daal di ni mël génn mbaaxaan di lox di rab-rab yi def loolu mu ne Bamba ñëw tabbi ca neegi nee na mbaaxaan mu ne mu di laaxaan ñi ñaar ma ni ko ma dëkkoon mo sant mbaaxaan yaari fa sekampe jaraaf Birahim jaraaf Njàmbur ni yoog Sëriñ Tuuba ne Bamba yaay mbër waxoon naa la ni bul woo bambak nga naa borom ndar mooma yónni balbak nee na barek doom ak fa ta lay fa daarul ma naan kondanaa fa àgg visité kër ga bam dañ ma dellu wax ak borom ndar seex yëpp yi déglu bamba ni cell tontuwul mbaaxaani dal di ni ñokket mook borom gaawaani war jakkalaar gax del daarul ma naan moom ceer na faati xeli kaase ñuy naa maam Cerno Faati maam Cerno Faati xëli kaase ñooy naan maam Cerno Faati maam Cerno Faati xëli kaase ñooy naan ñu teg cay fan noon ba dal wey ndar se borom ndar dag ya dëkk dër dër keroog laa soona ba dellu jaaju keroog laa soona ba dellu jaaju dandar kalaame ba mba muy fa jaajo keroog borom ndar kala borom ndar mboole kooki karte sandarma yaaki espayis ndaw gàcce commandant ak alkaati yaak soldaar sax ñëpp ba woo ndar daal di ñëw ca saa sax mu boole kook chef yëpp ak buur ya ak seen dag ya kenn desul ca ya ma dem ca gàjjool takk naa di góoram ak dagam yëpp ak dibeem ak buutaram bulak ca waalax dal di jàll deex yàq ànd ak dagam yëpp di dekk seex yàq ñu woola buur siin kumbanja mu moo jiite kàngam ya yor société ñu woola buur siin kumbanja mu moo jiite kàngam ya yor xare ba ñooy société ñu woola buur siin kumbanja mu moo jiite kàngam ya yor xare ba ñooy société ñu woola baay bayaar maneer mu way si ak ñu xam boore seex yëpp daw seex ñu woola bar saalum man dek saalum ba mu ñëwee ngay sine fab ni maalum bu ñëwee ngay sine lañ waa bambak bur si ndeyee loola kay capitaine ba ñu yónni ndaw ñu yónni ndaw mu wàcc laa ngaabu wooyu gondombor ak basiir ñuy nabu ajjuma doon wàcc fa ngay di fetalo réew mi paas ni meng rew ba dem ndolo amet ñëweel lañ del woo Seex Bamba toob ba woolu ko te moo yor xare baak keroog bisub gaawulaak Bamba gantu ne ndaw la bul del si te bul ma tontu keroog la bekki fakke ak musoobe daja fa Seex Bamba di jooy ba woobe naa ko wuy ji yërëmal njaboot gi mbaalu ko mooy musibaam ci Bamba naa leen di sama borom lay déglu waaye waxuma ak seeni morom xawle muhammadan asalalilaaw barsaal mag bur sino fekk mbaaxaan ànd baak bar ngay boor mbaataan te cooy ñu dellu waa ni kono mbaalu ko mooy mooy balba kenu nga takk daaru kenu nga takk mbake takk daaru ma jàpp ñëpp dafa maaro se bamba dole ganto për we kiiro na laawo war ni mooy kiilo yàlla walaa yox seen ka xaw lahum la wax wala ta xaafohum xaafoo ñu la wa xaafoo ñu la sax kuy ragala ma joosi mbam nasraani mboy fàtta yàlla da nga dem niiraani nda soo xaafa dura xal xen bax damaak fool soam ria ilaa rabbi sama ilaa siwaaya yen tax ñi daa jaalo wa kula ma wallahu wal aw jaalo rafa ahlu badil islaama wa sang sumul fujaara wa salaama baa bi maa ñu sowul xanaaso wa sura man loona xanaaso dooleeti wax ni dellooti wax ni duma wu jabada te ndigalal yàlla ñëwul ak ahmada sala wa sallama alayhi laaw bil aali wa sahbi wa man alaaji seexanta yoon ni njoogu njaay mu dem keroog wax ak tubaab ne saay mu dem keroog wax ak tubaab ne saay mbaaxaana ànd moom ba gis ko maandag ko waxal mu dégg buur yëpp a ngarang mu ko Cheikh Bamba ne mën la ñëw tay ilaa bismillaay moo sañ maa tey mu ko Cheikh Bamba nee na mën la ñëw tey ilaa bismillaay moo maa tey mu ko Cheikh Bamba nee mën la ñëw mën ilaa bismillaay moo maa capitaine wax na nee ko kon bettuma ko capitaine ba wax ni nee ko kon bettuma ko tey jii xam ni maa yilif ba ma ko tey ma toj Mbàkke ba ma naan jàpp yaak doom ñi jébal mbaaxaan tey ma toj Mbàkke ba ma naan jàpp yaak doom ya jébal mbaaxaan ba njaay ñëweek xibaar ko Bamba mu ni ko yàlla ngi ak yoneen ba keroog la Bamba naak su ca day ñëwee ab sew du takk force daw fan awek ab sew du takk force du daw fañu xawee kum fekk toog bul jóg taxaw dara du am kum fekk tëdd nelaw wal te yor la laay ja wax te sar imraan gaa yi badar jeex naa ko darul ma naan la yàlla wax naa nasi na naasa xat jàmm wa lëkkum lëm fasaasa laay ja yàlla wax te sar lan faal batin balaa jox gay daaru kenn du bu ñëw mbake mu jal daaru mën a ta ñaaru téeméer ba ruyay waaru junni bu ñëw daaru ba jël si mbake mën a ta ñaaru junni daana sekk la daam fanaane keroog la daam fanaane jàng laaya ba ca fajar majo sa te kraaya loolaa di alfon yox li bol ay fay ni te saar lan faal mooy boromu nay ni loolaa di alfon يخلب الألفين لا لا الفن يخلب الألفين تزر الأنفال ما برمنين أبسق دوتك مك مك أبسق دوتك مك مبكك دار تنون بنيو دار سدل وارو تنون بنيو دار سدل وارو kàngam yooyu yëpp ay mujj del si jébbalo ak doomi foor yaak nasaraar yaay noppalo saa noon ya mokk nañ bu yàgg maa ko wax wa makara wa makara laaw laa wax wala digij nu la wala wala koor noon yàpp mokk nan yàlla mooy boor yàlla bambalee bu gay mbaaxaan ak wóor ànd ak ñoom fa daarul ma naan doora yabal alaaji seexanta mu wéy ji amen ñëwel la gontu keroog la bamba yónni si daan si la bamba yónni si di kalaak lu Bamba yónni Sidi Gaawaar mu war jabar lu laay réew may saawaar Alaaji Yuusuf Baabo moo def santam moo tax maaj maaj moo def cantam Sëriñ Mamar Jaaraay Sëriñ Mamar Jaaraay magam ji saayir xaadir sëriñ mamar jaaraay sëriñ mamar jaaraay magam ci saayir te moo ko seexal dafaral ko xaadir la war wajan wu rëy te gudd tudd soxna mbàkke kooka tedd maam ceer na war fasu magam ñu ànd ak maam ceer na war fasu magam ànd ak ñoom mu ngelamul seex mbàkke maane moo moom ñu nga dajeg tubaab ba ñu nga dajeg tubaab ba ak mbaaxaane ak góore ya bu faa ba ñuy dimbaaneek ba ñu maam ba ñu nuyoog tubaab ak mbaaxaane mu laaj Sëriñ Tuubaa ñu ak mbaaxaane mu laaj Sëriñ Tuubaa ñu naa ko mu mer di mu mer ne mer di ma kenn maane ne leen ko bett ko takkusaani tey jii gaaw bi mu xam ni maa gaaw kon ak ki léegi yàpp naaw alaaji seex ne ko ki la saam mooy ma gi seex bamba te mën na wuutu daam ki lay borom saam te mooy ma gi seex bamba te mën na wuutu daam mag cer na min noo di rakam gise ci moom moo tax mu yónni te yow tubaab baloom daw ni karte yëpp nan way daaru wala tamit seex bamba way ndakaaru ca waa waxtu la dajeeg sëriñ daam dikk nu yoog daam ne ko maa di sab jaam suñu ma digal nde kon ma wax mu ni ko may la kon lool jawaab la mu ni ko bul déglu kulul mbóor yàlla mu ni ko yaay sama jawaab fa yàlla Cheikh Abdou yaay sama lisaanul xaali jawaab nga fil xaali wa fil maali haraba min kitaabati shaytaanu malan daa wal jondoba sultaanu fekk Sëriñ Tuuba di def xasiida guna walilaay borom masiila bam wa yaarab ya bil ta daar ga la daa di wuji noon ya bambaay waar ga wajaanal muxtaara sallallahu alayhi firaal wa man walaahu lawang jaaban maaniyaan minan darar suma loo xaalam si la taxsal xarar njol makka mooni ko doxal yir naa la te bu ragal lor mbindeef yi war naa la دفت الكريم وأتاب للخراء ولا زال كاسراج في الخراء لما مجب دار منام داتني نيكر والنار بيدان كالات ندك نار بتدو شيخنا ولا دودا دا كا خمنا شيخنا كالات ندك نار بتدو شيخنا kenn waxu ko ba mu demee la julli ñaari raka faran ngi gis ga gaay war ko fàkk ba mu demee la julli ñaari raka faran ngi gis ga gaay war koy fàkk ba mu salmalee la ñëw ba ca faf guy ga ba mu salmalee la jug ba ñëw fa guy ga ni mak jublu penk ne gar ga moo tax ba waa melel di war ngiis ga góor a ñeweel di war maal guy ga fekk tubaab yi waaj a jëm si daaru kàngam yëpp yëpp daal di waaru buur yëpp ak nasaraan yi ñëppay rab-rabi toob ak ni xiim di sab-sabi Seex Bamba di ni ko yaa ngi Seex Bamba ni ko yaa ngi maa ngi yàllaa ngi yonente baa ngi seere yaa ngi bu yàlla daf laa sant jaamu yàlla nga bañ ko man man nangu ko day na yàlla ku bañu yàlla digle ak la soolu loo digle bañ naa loola ñoom laa woolu li loola nay la la du yaa moom xare bi min tawbatin raw jasa ma sannawa buton noom sakanala xaaribu wal kullu minhum min shadin sharibu bursina jeggante tuwa baag mbaa xaari ñaan leen fa njekkitinu darul manaan keroog la buur yooyu yëpp saawaan tubaab ba daal di tubaab ba daal war ñu ànd ak mbaa xaar dellu dar ci mbooti waa Badar quartier dellu ndar ci mbooti waa Badar fexe yëpp niil daaruñu si kar ca waa waxtu la sëriñ Tuubaa jog taxaw di wax ñu xam ne buur yàlla jog keroog la jàpp bay fanaane jorbel kàngam ya naa Cheikh Bamba duñ ko gërbal mbula ki ki sugeer ñëpp a ñëwoon fa Mbàkke saka doomi Lat Joor yi mu amoon limal ma sekk julek Abdoulaye Xaar Mori sa Joob ak Ibra Joob di leen xaar keroog la Cheikh Bamba di leebuñ nasaraan kelab doobu ko ci buri soodaan naa leen ku kaf jigéen ni meng ay at te mënuloo ko dara dara ci wet nga këf ko delloo si fekkal ay bakkam ndax genn guddi dana tax nga am ca ñu naa ko déedéet mu ne noonu laa mel man Seexu Bamba la ma tiddo ay bal am na juróom yaari at ak lu topp te mënuluñ ma dara dara maa man ñëpp kàngam ya yëpp ay del si jébbuloo ak doomi buur ya nasaraan ya noppaloo dal dini walbet del si daal ma naan keroog la war ca fasu Sidi Gaawaan keroog borom saam togg si di gaawaan ñu daal di ànd del si daarul manaan ba ñu ñëwee la daal di jaar fa jàkka jàkk jëli fa ñaar rakak ba ñu la daal di jaar fa jàkka jàkk jëli fa takkusaan ñu ànd ak maxrajak bam salmalee la wala bokki mbàkke wax leen fa loolu ñëpp mënuñ koo fekkee bam salmalee la wala bokki mbàkke wax leen fa loolu ñëpp mënuñ koo fekkee dafa ko sikki sàkka daal di àll ko gaaw la gonte daaroog fal ki weddi lii nga dem ko laaj sëriñ daam doon xibaar ma way ko ngir daam wala nga laaj sëriñ ma mar fetto moo yor keroog buntu moo koy wattu am na col ma doon xibaar fatto ba keroom atom ba keroog atom carrière ba bég naa booba alhamdulilahi ala xudoomi ndem dellu gaangi dellu dim xadimi ma wax la bis ba bamba gonte ndaaro ma wax la bamba bis ba gonte daaro jëm ndar ba way gànnaar ba naar waaru fukki fan ak juróom ñenenti gaaw la bamba gonte daaru daldi saawu bi bis la soxna musli doom jay màggal moo tax ma way ko yàlla naa ko àggal budul ko nag moom duma way xibaar suli boor yaak ndam yo na bëri kerew la génni dox fa daaru manaan maam Cerno jox ko fa suusi gaawaan ba ñu ñëwee borom bu mbakke baari la daldi naari waa gànnaari ba ñu borom bu mbakke baari la daldi woolu naari waa gànnaari Mamadu Faal ak say dab ko kële ko togg ca gileem ga ko ca takku saani suuf la baay ca takku saani suuf la baay sëriñ Musaa ne ca takkusaani soof la ram Musaa bàyyi da takkusaani soof la ram Musaa bàyyi dootu nu maam ni ko yaa di saawaay te ku ku ne ta dekk ba du mag du ndaw ñun ñëpp ngir xare ba soo bàyyi maam dal di jooy di bés mu naa ko fas bir ma daal di dellu seet mu romb kanka dellu laaj moon maa mu saar teg te ma kumbali ñoo ko siyaar bam saa faanteeg ñoom la way jëm bay si fa tooli bay tey la wàcc yaa teeg fa la julee timis guddi dibeer ja ndawal borom gaawaani ni seef ak mooy njoogu njaay ni ko borom gaawaani nee nga dem Jurbel te ngay fanaani kalaak la kalaak la walbatiku jaar si nga ba fala julee gee murid yeñ na bu keroog la walbati ku jaar si nga fala julee gee murid yeñ na bu keroog Masamba Kura Juuf sa ngéem na jooy ba far jébbalu xol ba sooy na moo tax lam fa ngaabu bañ fa taraagaak laa saabu moo tax ba Seex Bamba ñëwee fa njaareem mu sanc fa daaru ñibal fay doom keroog la laa diwaalu xaali baaba ak Cheikh sa toog Serigne Massamba Serigne Massamba kura may leen kër ya moo tax alt baang faan ak der ya Serigne Massamba kura tum na faat ñu fab ko rab te jullikaay baa yaatu keroog la wax ni bu def ab jullikaay def naa fa ku ko xamoon def ko ab jataay te di fa ñaan di ko saara abada te di fa tudd yàlla ak muhammada ku ñu fa rab mel ni yaa nga tooba soo dee dekki sagulu jaari tooba sooy dekki sakro di jaari Tooba keroog la Bambay dénk xaadi baaba ngir lam daan ak tubaab ya booba yaa xaadi kun fi baaba xayri wala ta kun fi baaba sharri keroog la xaadi ni ko toobal naa la Seex Bamba daal ni ko jéggal naa la ma wax la ku digam waree ba jëm si Jurbel nasaraan du laabu daxaar ga woon fa dala bam fa tollo la wàcc naa fi la fa gaay tollo moo tax ba Cheikh Saliou Fall ma gën di góor ne dala ma namdal ba def daarul xafoor moo tax Cheikh Saliou Fall ma gën di góor ne dala ma namdal ba def daarul xafoor moo tax Cheikh Saliou Fall moo tax Cheikh Saliou Fall Cheikh Saliou Fall ma gën di góor ni dala ma namdal ba Seex Moodu Faal Saaliw mooy doomam jax ànd ak Sëñ Tuuba ñu warooroom jax moo tax bal su baang fa ànd ak ga tey taxaw di sa baal Bamba subaana man fil bari wal bari maak addal jawaar ya wakkul al jamaak subaana man rijaal fi safina fi xidmati lisaabil madina subaana man yulju fi naari alay la wal isaara fi yaari soo ko gëmul yaral ja saam sakoor moo ko waxoon ma way ko bamba mooy góor yaa la bari wana gay jaari yaa la bari géjama jaari si bamba dem na fépp woona ñëpp woote na fépp fañ na aajo yëpp si bamba dem na fépp woona ñëpp woote na fépp bal ma ca fañ na aajo yëpp kuma kolon boobe ja saam sakoor bu jeeri jaangi mooy nawet balay noor xaajab kabak bub soof la moo kaamil bambay misaalam alxuraan mooy kaamil déggal ma wax la ba mu waree romundu ture dal di fa kolo keroog la wàcc woolu mooy soxna Faati doona sakki kooka jigéenab Sidi Anta Mbàkke dindi alaaji Mamar moo kooka jigéenab Sidi Anta Mbàkke dinday alaaji Mamar moo sëriñ Masamba samba jóg ànd ak ñoom ba ñëw nuyoo ak Cheikh Bamba naa ko doon moroom keroog la seen borom gërëm na leen yeneen gërëm na leen man itam ma leen keroog la naa leen seen borom gërëm na leen yeneen gërëm na leen man itam ma sant leen sëriñ Masamba Touré daal di daanu sëriñ Masamba Touré daal di daanu fi kanam ak Bamba daal di kaanu ba ñu gisee ak ñoom ba mu gisee ak ñoom la waraat wéy jurbel sëriñ ma sàmbay war tubaab yay gërbal naa ko koma dalal di dellu si bamba daal koy digal mu dellu dellu ti muñ lee mu del si mag naa ko dénkaat naa la mag naan ko dénkaat naa la soxna mbàkke alhamdulilahi la si yëri du nii ilaa maa di waye sonu badani moo tax ba seex moo tax ba Cheikh Ahmadou Lamine Touré yor soxna Astu Mbàkke lii ka biire li tax ba soxna Astu Mbàkke màggal Mbàkke ak Touré ak Tuubaa di waaj ak Jurbel yàlla na yàgg waate guddi màggal ñu di ko wuy jaabadan banagal moo tax moo tax ba wàndulak moo tax ba wàndulak Touré xaram ya ak tubaab ya ñëpp di ko yam ñu fab ko tëj ko ci biir société mbaaxaan di wax ne bu ko kenn seeti ñu fab ko tëj ko ci biir société mbaaxaan di wax ne bu ko kenn seeti guddi keroog la mbaaxaan wax ci Seexu Bamba si ñeefu ko ñetti liggéey Bamba Seex Bamba naa ko ba ci loon mën a meroo soo lëggee ku ma merool daanan ko maag yow dun maro ci dunyaa Cheikh Bamba du mooyu ko mooñ ngir fen ya keroog lar na baawa xaana mbaaxaan guddi keroog la dellu daarul manaan foofee la Cheikh Bamba fanaane julli ba fajar leeri ba daree jolli guddi keroog tubaab ba ànd ak mbaaxaan rocceeku ñëw visité daarul manaan bëggoon nañu duural waa daaru bëggoon nañu duural keroog waa daaru ci xeeti ngànnaay yi yuñ yoroon farwaaru fekk fa maam Cerno Ibra Faati mu won leen lépp gisuñu dara dara daaru gépp lu dul gaal yu mag def ay téere ñu daal dellu seeni wax di meeri keroog la kàngam yëpp ak dameel yaag ak yelluwaar yaag war di daw ba meel yaag ak ceddo yaag chef ya ci àndoon yëpp ngir xam ni lëf dana fi am lu ëpp keroog la Seex Bamba ni suuf si Jurbel moom a fi woo danaa fi ñëw ñooy sargal téeméeri at suusaa ngi jooy ngir mooy yi kenn mosu fee jaamu lu dul xërëm yi su ma sunu demee bagaamal sasi danaa fi ñëw tey nong caamal sasi subhaana rabbiyal kariim al akrami man sannani an jaalibil aram rami ba allazi ama saahibil mamaat fawran wa ba aman xalaani bi shamaat man amani bi shayin ba bi darar dunyan wa uxran laa yufaariqu sharar laa yufaariqu sharar kafaytani man kafaraka turra wa kulla maa la yajru durra وكل ما لي يجر الضرا كفيتني ال... كفيتني الكفر وكل من كفر وبي هديت نفرا بعد نفر كفيتني الكفر وكل من كفر وبي هديت نفرا بعد نفر ببرزتك دلتي فانتوير وقت بسبب bisub di beel la Bamba xayal leelak dama la wax xibaari Jurbel léegi nigal ba la sasin ma fekke xëy na Jurbel yendu tool ba takkusaan mu gëntu wey keroog tuwaawan la fanaan Seex Buubu Silak bay Laamin Silak njoka fay saqiray ngir Yàlla moo tax borom gaawaan moo tax borom gaawaan tabax fa kër ga tudde ko tool ne moo di garga Alaaji Mbay Muhammadul Maamuna moo fa dal doom ja ku baax la moona keroog ba Seex Bamba demee Tiwaawoon ba kër Sëriñ Maru Bagay la jaaroon fala fanaan réew mépp ñëw siyaare murit akub tijaan ci doomi jaara mbobat sete la tàbbi gaalu jeeri keroog bisum altine kenn du dóore yàlla rasulullahi ak jibrilu ak ahlul badrin ñoo ko yor moo kiilu keroog la sama gannaaw ak sama kanam ñi lee may yor ñoo may bijanti keroog la yendu kal ci biir première sa xaare dan fay tase yendu faariir keroog la daan wax Cheikh Mamour Jaxate ak Njoogu Njaay wax ji le maa ngi koy waxati ni sama yoon wi su ma ñibbee Tuuba sa xaare dootu fa jóg su boobaa jumaa ja day taxaw sa xaar rubina yay wala ngaan ngeen tooxo tubaab ya ñooy taxaw mboolem yoon ya ñooy raw samay murit keroog نبورك ومسكني سلم من الفجار ومن على الأهل بما من جاري دال النسي أمد جواب مدك نار يا سما سيارة يا سرين باك بدر ين لا بغور ngeen nekk foofay jàngale waaye dañuy tabax juma mbaagale guddi keroog dana bawa tiwaawan romb defuk yajin ga la ma ko waxoon ni ma laam fii danaam fa tuubaa waaye di leen di fekk la xubaaba keroog la Seex Bamba daloo coro cara toog jublu penku jàng saar Bakara ba màggalee mu teg ca saar Imraan ba màggalee la woolu si ni gaawaan daal di ñoogu njaay ndër ni ñoogu njaay wutal ma waane mu del wool ma borom gaawaani mu dal seen xaadi ma morom gam faafa mooy beem mu daal di wàcc mu jox leetar ni ko soxla naa ko ne dal ndar ëllëg woo naa ko mu fab daje ak alaaji Seex Anta fa ngaay keroog ba mbalaata gontu Seex Faate jiite ma fa ngaay moo jiitu won ko gaawaan këram mu jiitu keroog la Sidi Anta dal di wey ndar mel ni ñu ànd ak Seex Bamba mooy mbër fekk Sëriñ Tuubaa fanaan fi daari ca kër gu yam na ngiroo yor ne baari guddik talaata la fanaani ndar gaaj seen doomi ndar ya yëpp naa ko yaay géej guddik talaata la fanaan yi ndar geej seen doomi ndar ya yëpp naan geej yéen na ngiroo ko daal di bindal leetar ànd ak borom gaawaan jox borom ndar Seex Bamba wax ko mbiri daarul ma naan ak mbiri asoona ba tuddu mbaaxaan Seex Bamba wax ko mbiri daarul ma naan ak mbiri asoona ba tuddu mbaaxaan keroog la borom ndaw waru duudu sekk keroog la borom ndar waru duudu sekk mooy bind kat ba koy bindal mu ne ko nel mbaxaana ak kamandang suñu demee daar dana am kànkang